dañuy génne hôtel bi foofu dem ci masjid al aqsa fii moom gis nga alkaati yi dañu taxaw di surveiller toujours bunt bi entrée bi ak génn bi day xool touriste yi ñu dugg dëkk bu yéemi la de dëkk bu yéemi la lool ñëpp adduna bi yëpp dañ koy xëccoo fii parce que ñun fi ñu dëkk ak masjidul aqsa bi da ngay génn rek yéeg fi gis ni moom lu ñu wax masjid masjidu xubbatu saqar waaye le doom di rocher xeer la boo xam ne yontu bi saa sallam si la yéegoon mu jógee màkk yeew bu raax fële ci côté bu ne leen la ko yeewoon dal di nag ñëw fii julli ak yonante yi jiite leen cent vingt quatre mille prophètes dooga nag yéeg àgg ci boroomam jële li ñu fa jële lu bëri loolu julli yeeg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xajul ci vidéo fii mooy xubbatu saxara mu dem dugg ci biir incha allah toujours gis nga day fees dell ak ay touristes. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من wax nañ ne carré bi jàkk bi nekk nii mais sax boo xoolee ay musallayaat la ay jullukaay yu bëree du benn rek bii benn la ci bi may yéeg nii benn la ci jullukaay yi nekk ci masjid Al-Aqsa nee nañ amul benn boo fi gis lu dul yonent fi teg na ci tànkam benn yonent cent vingt quatre dafa bari loolu ñu ne mooy masjid Al-Aqsa ñu ngi gis nga ñu ngi ay comme duñu musulman duñ leen bàyyi ñu dugg ci biir salaamaaleykum barakaatu dungaa ñu dugg ci biir nag jàkk ji bismillah waan mu teg dàll yi doo àgg ci biir dem rek وهي تترك ما شاء الله Allah. Amu nii ñoo ko bani umayya ñoo ko tabax ñoo ko tabax xeer waa ngi ni nak xeer bi nak la yontu salasa mi yéegoon ci kaw avant muy ag ci kaw asaman ginnaaw bu mu yeewoo buraax bu bari fi la dugg yek ci kaw xeer bi après yek kaw asaman motax ñukay tuté bawwa batu sama buntu asaman. waaw gis nga dañ ko defar defar bu rafet defar bu rafet lañ ko defar gis nga dañ ci bind alquran boo xoolee extérieur bi suratu yaasin nañ ci bind ci suuf ci kawam ñu def suratul isra noonu la demee gis nga léegi nañ dem dugg ci maxaara bi fii xur bi xur bi nga xam ne xeer bi moo nekk ne xeer bi fi mu la doon wax yontu saa salaam fa la yéegoon léegi ndekete ci suuf benn xur la wax nañ ne maam Adama fi la woon fi la doon fanaan bi muy tabax masjidul saa di teg pose première pierre yi moom moo ko def fii la ñëwoon ci biir xur bi parce que day am ay nit toujours xeer bi moo ne ci kawam nag xeer benn xeer bi moo nekk noonu suba ñu mooy xubbatu saxara le doom du rocher xeer bii la moom lañ defar ni wërale ko coupole bu moom nekk en or noonu ngeen di gis léegi ñu génn àggali tuuti.